ñu ngi leen di ziare di leen ñaanal jàmm tey dañ leen indil ñaari article yu am solo pour yéen ñi nga xamante ne da ngeen bëgg a seen espace su bi gën a am espace donc tamit ñu yokk si beneen raccourci boo xamante ni bu fekkee da nga bëgg a woote numéro ci méthode bu gaaw gaaw jarul ngay seet contact bi donc vraiment mu nekk raccourci boo xamante ni après dinañu ci ñëw léegi. donc ñu ngi lay wax bu fekkee gan nga si page bi nga abonné te partagé xam ne loolu moo ñuy may doole. laal j'aime bi surtout donc ñëw léegi léegi wax leen nan ngeen di def ba gën a am espace ci seen téléphone te doo leen supprimer benn photo wala vidéo première bi ñu bari da ngay gis dañu yor application yu bari mais bu ñu supprimer application yi nii dañ koy supprimer fii nii ci écran d'accueil bi directement te lii nii baaxul gaay application bi heure boo ko supprimer fii nii rek dèjà kàcce yi du dem li nga xamante ni mooy normal bi nga xamante ni boo ko supprimer di nga gën a gañ espace te kàcce yëpp dina dem application bi dina set boo ñëw si réglage bi da nga ñëw général après nga ñëw si stockage bi nga xool application yi nga xamante ni moom nga bëgg a boo ci boo ci duggee ni da nga koy décharger ba pare dèjà boo ko décharger nii day dini kàcce yi mbalit mi nga xamante ni application bi amoon na ko yëpp application bi set. bu setee nii ba pare donc nga door a ñëw nga supprimer ko donc lii mooy méthode normale bi pour nga supprimer application ci sa iPhone pour gën a am espace bu bari si sa téléphone. deuxième bi tamit yomb na moom tamit mais moom doo supprimer benn application wax dëgg yàlla pour libérer kàcce yu nekk ci téléphone bi yëpp wala moom boo ñëwaatee réglage da ngay ñëw général boo ñëwee général da ngay wàcc ba si éteindre bii nii. mën nga ko defee bouton verrouillage bi mais comme lii moo gën a yomb pour mu expliquer ngeen xam ko boo ñëwee fii da ngay ñëw si touche bi léegi nga appuyé ci digg bi nii ba mu indi bi dèjà bu la indilee code bi nga dugal sa code bi automatiquement day génn ci écran bi nii lii yi lu muy jariñ bari na lool lool lool dëgg yàlla day dindi bépp kàcce boo xamante ni mu ngi woon ci téléphone bi rek di diisal iPhone bi da koy raxas donc euh, téléphone bi gën a woyofaat lool raccourci bi nag moo nekk nii mooy application bu zone bi ngeen di gis. heure boo ko touché rek nga mën a def appel numéro bu la neex donc vraiment mu nekk raccourci bu am solo nga xamante ni jarul ngay nekk si contact yi di wër numéro nit ki à tout le temps raccourci bi rek ngay créer am bi ni heure boo ko touché rek mu ñëw raccourci bi mu ngi si description vidéo bi raccourci bee nekk ni bu ngeen ñëwee ngeen ajouté raccourci bi mu ngi si description bi mu ngi maa ngi ko dugal tamit sama telegram bi gis ngeen bu ngeen ñëwee fii nii léegi ci plus bi nii ngay dugg nga choisir numéro bi nga xamante ni moom ngay gën a woo à tout le temps mun na jël ba trois numéro ba quatre ba cinq numéro voilà gis nga boo ajouté raccourci bi nii jeex na léegi boo ñëwee si raccourci nii da nga koy gis nii ci kaw bu la neexee nga changer tour bi wala nga gën ko personnaliser def ci photo yooyu gis nga boo ko touché rek day ñëw day lancer appel bi numéro nit moo ko def bu la neexee tamit nga ajouté ko si écran d'accueil bi nii parce que moo gën mu nekk si application yi nga xamante ni heure boo ko soxla jarul dugg si raccourci bi di ko seet voilà boo ñëwee fii ni bu la neexee nga changer tour bi wala nga def ci photo boo defee boo ko ajouté nii rek donc automatiquement day ñëw ci application yi ni heure boo ko laalee rek mu lancer appel bi numéro nit ko nga def vraiment moo gën a gaaw foofu à tout le temps nga nekk di seet numéro nit nit ki donc gars yi tey vidéo bi loolu lañ leen andiloon ñu ngi leen di wax ngeen abonné te partagé ba beneen vidéo incha allah